composé pour la plupart des conseils municipaux et départementaux ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca mi ak des conseil municipaux et départementaux yu jógee parti Reste les Verts FSD/BJ Bës du Ñakk ak Faxas ñun dañu dajaloo constitué wu collectif jeudi président Macky Sall le président de la République si la ñu recevoir waxtaan ak moom saafontoo ak moom wax ko ni ko ñun dañoo jël décision ferme pour jàppale ko ci élection présidentielle yi ñuy dëgmal février 24 février 2019 pour jàppale ko pour mu am dès le premier tour un un second mandat te loolu ci anam yi gën a rafet ci anam yu mucc ayib loolu lañ dem waxtaan ak président Macky te bañ ci demee jox nañu déglu nañu kontaan nañ suñu suñu teew kontaan suñu engagement lañ ci mën a taftal moom mooy ñun ay doomu Thiès lañ ñun Thiès moo ñu soxal ñun Thiès dafa occupé place bu am solo suñu taxawaay ci wàllu politique suñu taxawaay si suñu dundin chaque jour Thiès dafa jànkonteel ay jafe-jafe li nga xam ni ci ay at yu bëri yu ñu weesu 14 ans suñ ko mën a xayma ci wàllu politique ci wàllu social te képp ku bëgg Thiès képp koo xam ni Thiès moo la ñor képp koo xam ni askanu cees moo la ñor. problème boobu nekk na lu la metti nekk na am na ñuy occupé ñu rëy si yow ñu jàpp ni réew mi ñu ñoo ko bokk réew mi yàlla dafa am comme fi teg muy président Macky Sall mu nekk président bu nga xam ni dafay liggéey ngir réew ñu liggéey ngir askanam te loolu yaakaar naa ni ku xippi say bët teg teg gis ko ndax projet yi ñu fi tàmbali woon yëpp commencé di jukki jëm kaw réalisation yu bëri nañ te Thiès ak nuyoo rek la fi def aéroport bu mag bi Thiès la nekk autoroute bi la Touba bi Thiès la voie de contournement du projet yi Thiès la te nuyoo kese la ñu jàpp ni président Macky Sall suñu àndee ak moom Thiès dina ci gis bopp suñu àndee ak moom Sénégal dina jëm kanam parce que liggéey bu ñu def ñëpp ko rafetlu ñun nag décision boobu lañu jël pour ànd ak président Macky Sall xooluñu suñu ginnaaw xooluñu suñu wet suñu kanam lañuy ñuy xool jàppale président Macky Sall au-delà élection présidentielle yi nga xam ne mën nañ jëm ko ñu gunge président ci politique à la nation bi nga xam ne moom lay déllulee. ci mandat bi nga xam ne moom lay ñëw parce que ñun amuñu si benn sikki sàkk ni ki day gagné élection présidentielle yi dès le premier tour nag ba ñu toogee saafan ko président Macky Sall am na ay question yu bëri yoo xam ni dot na fa xam ni Thiès lay concerne ay question yu bëri yoo xam ni waxtaan nañ ko moom yaakaar naa ni bu ñu demee ba ci biir ci waxtaan question yooyu dañ ci tudd gën a leeral askan bi xam ni liggéey rek moo ñu tax a jóg leneen tax ñoo jóg loolu daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ni pour taftal ci ay wax pour ñu dégg maanaam en guise d'introduction te xam naa ne bu dee bis bi comme ni nga ko waxee nañ mën a dugg ci waxtaan bi. tudd Ousmane Mbaye nekk euh, conseiller municipal ci mairie Thiès Est ak mairie Thiès Ville mairie Thiès Est maa dirigé commission religieuse mairie bii ma maay président de la commission chargée des personnes vivant avec un handicap maa ngi sama deuxième mandat ci conseil municipal bu njëkk bi j'étais avec le Rewmi deuxième bi ma diriger liste yàlla dogal ci liste boobu ci laa jàllewaat conseil municipal euh, ñaari yoon euh, nekk nag président du mouvement ndam li ndaw yi maa ko liggéey Thiès nekk nag membre du collectif nga xamante ni suñu suñu objectif bi ci ëpp solo mooy ñun ñëpp dañoo ànd bi ñu gisee problème yi nga xam te ni Thiès am nañ ko ñu nag ñu ànd jàppale le président Macky Sall ngir falaat ko au premier tour n'est-ce pas des élections euh, du 24 février 2019 lépp nag ci loo xamante ni mu soxal Thiès la ci kàddu yooyu rek lañ doon tënk suñu wax salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, damay jàngale nag droit des transport ak affaires ci université yi. ba pare man maa nekkoon coordonnateur départemental FSDBJ Thiès bokk ci mairie commune est di jiite coopération décentralisée euh, ci li ko waxee ci nasaraan léegi nii président de la république recevoir nañu déglu nañu te it nit ñu recevoir c'était hors ndax audience la boo xam ni jéggi na doyoo ñun ñi nga xam ni yàgg nañu rencontre ay autorités keroog xam nañ ni président kontaan na kontaan boo xam ni liñ ko indil keroog ci sunu njiitu Ibrahima Lo xam nañ ni indil nañ ko loo xam ni mën na développer Thiès mën na développer Sénégal euh, ci li ma wax sànq ci li nga xam ni loolu laa xam loolu laa sama xam-xam màcc waar nañ ci loo xam ni mooy mbirum transport mbirum infrastructure ku wax Ila Touba ku wax TER ku wax euh, école métier du rail dina wax infrastructure dina wax transport donc yooyu yëpp président bi nga xam ni confirmé na financement wu cheminots yi avec un milliard deux cent millions fay seen arrière yi kon loolu Thiès sera le carrefour du Sénégal sera le hub industriel du Sénégal loolu lañ fa waxtaan ak président di wax ni collectif bi pare na pour jàppale ko collectif bi pare na pour réélire ko dès le premier tour incha allah rabi le 24 février je vous remercie. merci. je m'appelle Virginie Ngom. conseillère municipale de la commune de Thiès-Ouest. Je suis membre de Wrestling Donc je fais partie du collectif et notre engagement dans ce collectif, c'est pour la réélection du président Macky en dès le premier tour. Pourquoi Nous avons constaté ici Il y a des présidents qui ont passé ici au Sénégal, mais ce que le président Macky Sall a fait pour la région de Thiès, vraiment, moi je dis, je ne l'ai pas encore vu. Notre cher collègue Ibrahima l'a cité tout à l'heure. Je ne vais pas en revenir, puisque c'est déjà fait et tout le monde le constate. C'est pourquoi nous, reste les verts du conseil départemental, le conseil municipal s'engage aujourd'hui à travailler avec le président Macky Donc euh, je suis là pour Raphaël Tchon est là, Raymond Marie est là, Maguette Chao est là, de Reste les Verts. Donc moi aujourd'hui je m'engage solennellement à travailler pour le président Macky Sall dans le collectif que nous avons créé mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp ci nekk turam ak santam maa ngi tudd Virginie Ndione conseillère municipale Thiès Ouest di wax ne man it ci parti Reste les la bokk bokk ci collectif bi tey suñu engagement ci collectif bi lan la ngir jàppale président Macky ñu am deuxième mandat dès le lu tax ñu engagé wu man wax naa ko léegi nee naa président yi jaar fi mais li Macky Sall def Thiès ci région Thiès gisaguñu ko parce que du ma ko cité ndax Ibrahima cité na ko Ila Touba yi mu ngi fi voie de contournement yaa ngi fi leneen ak leneen donc loolu moo tax ñun reste les verts ñu bokk ci collectif bi ñu créé man Virginie Paul Raphaël Thion pour Raymond Marie Faye ak Maguette Diaw ñu ngi engagé wu pour jàppale le président Macky Sall ci biir collectif bi ñu bokk dès le premier tour maa ngi leen di gërëm. bokk ci conseil municipal bu Thiénaba nekk ci réew mi yàgg na nag ma nekkee foofu ca fi dal ca M6 ma réew mi taxaw musuma tegg sama tànk yàlla doxali Ibrahima Lo bi woo ma ma di ko càmbar na séq ak moom gis ne dal na kàddu yi muy séq man mi ngi koy sàmm ko ñun ñu jox cër rek la ñu bëgg ku ñu respecté ñu ànd ci ak yàlla dogal na it président ni ko ñëpp waxee dalal nañu alxames ci ngoon ci centre bi ci Diamniadio am na lu mu wax waaye lii ñu wax nii dafa ëmb département Thiès sax mën naa ne ak ci Sénégal ndax nit ku duna semaine de ferme mais ak société yi mu àndal yëpp dix-neuf société lañu kon dañuy wax ne baat bu jëkk bi bu taxee indi bu delloo te ndox des ci teen bi yi ci des dinañ ñëw siyaasa nga ca semaine de fer nga ca ak yeneen néexu la lim dix-neuf société lañu yàlla dogal ci jàppale ñi le di le quinze décembre mu daje fële ca Pikine su te Lobatt Fall daf réunion naroon na def ay grève de faim ci Sénégal gi ñu ñaan leen ba ñu dal ñu ñëw waxaatee ñi ñu jot li ko conseil président bi ko war a jot li mi ngi ci ñoom ñu di dalal seen xel ne bi ñu defee seen recensement ñaanuñu yàlla mu ñàkk euh, ci boobu vote boobu du toll ci téeméeri junni juróom benn fukki junni ñu teg ñooñu ak seeni njaboot ñàkk ko dansé la te fas nañ yéene dox bi moo tax ma ni ñii mbooloo mi dafa jékki cees dafa jéggi département Thiès nit ki boo koy jàppale doo ko utal foo mën a gis koo mën a ñoddi mu ñëw ànd ak moom te yàlla tax dañ koy def ànd nañu nag taxaw gunge président Macky Sall cene ba jéem a dëkk kee fa nekk maire di Talla Diagne jàmbaar la nekkul woon affaire defu ko maire waaye mi ngi ànd ak waa affaire socialiste list socialiste la fa ñëwee waaye gëm nañ ne ñu ko man bariwul ndax nag nit boo dee ànd ak moom ci benn liggéey xam jàmbaaram am jomam war ngaa waroo iñaan war nga ko wax Ibrahima ñun day amuñu ñaari xar kanam suñ la nee waaw waaw li ma la waxoon moo wér li fekk yaa ngi nii may dunde dara umpuma ci yow nëbbutu woo ma làkkutu woo ma bu ma la woo nga wuyu ma dinaa ànd ak yow jant bu ma demee ba gis nga def fa neneen nu bokkul ak noonu ma euh, taxaw na ngeen baal ma ak euh, ñu continuer liggéey bu ñu bu ñu tegg suñu tànk yombul nag waaye nañ continuer rek liggéey ñi ñi nga xam ne nag dañoo war a dalal te dalalu ndax man maa ngi dégg fan yee ay wax yu bari yu ñu génn jaru ko duñ leen tontu président Macky Sall la ñu séq moom la ñu àndal liggéey te incha allah dinañ ko gunge.